matam boobule biddiw yu dar ko nga xam ne lu àdduna lëndëm lëndëm ñi si biir géej géej jiir yi ñoo ngi gis yoon wa ñoo jaar mbokk yi ndax gis ngeen su guddi jotee ba yàlla yónni biddiw yi ñu tasaaroo bare ci kaw asamaan tabaarakalaa ak kaw ko bu duri yu ñu nekk si biir géej géej jiir yi mën niitu xam yoon wa ñuy jaar mbokk yi ndax yéen a ngi janoog fleur waxtu wañ ko roose ba mu ñor ba mejj su dee ubbeeku tabaarakallaahu di bejj di génne ay xet di génne ay parfum di génne ay fruit ñëpp di si bànneexu yéen a ngi janoog mbokk yi lit ko lañ waxtu woo ko tuuroo ba mu naaw si jaww ji koo dendal mu xeeñ sa bakkan di bég tabaarakallaahu di xeeñtu xet gu neex yooyu yëpp boole seen moo di jikko yi nga xamante ni moom la yàlla taarale sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko bind moo ko defar moo ko yar moo ko taaral moo ko tagg ci alquran ni ko wa innaka la ala xuluqin azim yow daal yaa ci gën a màgg jikko sallallahu alayhi wa sallam hadihi al axlaq alkarima tanbacisu min mashakiha وامتدت في طول الدنيا وعرضها وآمن الشرائع بها وأيقنت العقول بسمو بها وخلودها فأصبحت حياة الأمم ومنارا للخلق وقبلة تتجه إليها الأنظار كأنها كواكب كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم jikko yu tedd yi nga xam ni moom la yàlla ranga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fekkoon xeet yi ci lënd mu réer mu leeral leen mii ne na kaw kaw bu dëgëy bi alxuraan di wax étoile polaire boobu nga xam ni moom la biddew yëpp dar étoile boobu nga xam ni jant bëccëg lu mu leer leer du ko nëbb jant tàkkusaan lu mu leer leer mënu ko fay nee na sallallahu alayhi wa sallam daal mooy leer ci kaw leer ndax mooy leeru yàlla tabaarakallahu ma nga dagge ca leeru yàlla ñëwit di leer boppam mu ngi nuur na ala nuur leer ci kaw leer googule muy jindi jaam yi nga xamante ni nam lañ tegu ci yoon yàlla subhanahu wa taala yàlla daal mooy def lu ko soob si jaam yi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que limaamul busri ci aay bi ni mu ko tënke maa nga naan akrim bi xalqi nabiyin zaanahu xuluqun bilxusni mustamil bilbisri muttasimi kazari fi tarafin walbadri fi sharafin walbaxri fi karamin waddahri fi himami nee na màggalal yàlla subhanahu wa taala mi nga bind mi nga xam ni moo gën yonent moo bind sallallahu alayhi wa sallam te taaral ko ci ay jikko jikko yoo xam ne rafet nañu ci matalewu rafete daytal rafetaay mat na ko jikko yoo xam ne benn boo ci génne mbégte la ci jaam yi lii mii mel na fleur soo ko ubbee dafa nooy dafa neex xeeñtu su dee fruit mu neex a lekk lii mi ngi mel na leeru leetu badar ci teranga mi ngi mel na géej ci ku tabe nee mooy jamono ndax mooy itteewu lépp jamono sallallahu alayhi wa sallam fama ahraana wa nahnu fi shahri milaadihi wa fi karamati iidi min ayaadihi an numatta alqulub bi karimi xalqihi wa bi fadli adabihi fa fiha diyaun lilsaalikin wa nuurun lilaarifin wa basira lilmuttaqin mbokk yi te lii koon xol war na neex xol yi war nañu bég ruux yi war nañu ubbeeku nampatalu ci weer wi ñu dund weeru teraanga bii weeru leer bi nga xamante ni ca la ñoo màggal gane àdduna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di leer ci neer ñi xam yàlla di fàttaliku ci ñeer ñi bëgg ragal yàlla tabaarakallahu ñu jàng jikkoom yi nag ibadallah jaamu yàlla yi anas bu malik ne radiallahu anhu xadimtu nabi sallallahu alayhi wa sallam ashra sininin fa ma qaala li yowman uffin qattu وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته أنس بن مالك رضي الله عنه nekkoon surga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp ñaar fukki at mais sallallahu alayhi wa sallam mosu ko wax mbas musu koy yedd musu ko lu tax nga def nii nii wala mu def tax nga defee que ne wala tax nga bàyyi lii mbaa nga def lee mais musu ko ni mbas sallallahu alayhi wa sallam ndax yërmande mais amoon na surga boo xamante ni su ko daan liggéeyal di ko baleel mbaa di ko mu mu di ko fompal sallallahu alayhi wa sallam mooy jóg ci loxoy boppam di ko jàppale di jàppale surga bi di ko raxasal ak di ko fompal ngir cëram ak tawaaduan lillahi wa kaana ida saafaxa insaanan laa yanzacu yadahu min zalika al insan xata yanzaca al insan yadahu min yadi nabiyi sal allahu alayhi wa sallam nee na ku musaan dajeeg moom si mbedd ba nuyu ko soo ko joxee loxo yow doomu aadama bi xanaa yaay rocc sa loxo de moom sallallahu alayhi wa sallam dana la téye ba yow yaay rocc sa loxo ngir bëggam ak fonkeelam ci doomu aadama yi sallallahu alayhi wa sallam anas bin malik ne wama ruwiya nabi sal alayhi wa sallam maadan rijlayi bayna ashaabihi takriman lahum ne yonent bi sal alayhi wa sallam kenn mosu ko gis mu tall ay tànkam jëmale ko ci kanamu saxaaba yi ngir teral gi mu leen teral ak fonk gi mu leen fonk salallahu alayhi wa sallam am na bés benn délégation bu jóge Éthiopie ñëw di ko ziar si sal alayhi wa sallam dalal leen yaxdimuhum bi nafsihi فقالوا أصحابه إنا نكفي كذلك يا رسول الله فقال لهم أحب أن أكا أكافئهم من نفسي بدل غاشي بني مرنج دلال مغا سيرفير مغا تك مغا تك صحابي نك يا رسول الله نين من من يدفل لجي بي من لن من دم لن بغ ترال سما باب سبحانه وتعالى الله عليه وسلم نير ويفهم المباخم أغياتهم أنس بن مالك رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سائرا وعليه برد غليظ الحاشية فتقدم أعرابي وجذب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة وقال في حدة يا محمد أعطني من مال الذي بين يديك فليس المال مالك ولا مال أبيك فقال صلى الله عليه وسلم في تبسم وحلم وأنات نعم يا أعرابي ليس المال مال أبي ولا مالي وإنما هو مال الله عز وجل ولكن يا أعرابي قبل أن أعطيك نانا بين كو كو نيو نسمو بس تك صلى الله عليه وسلم مبنيكو بني بو نيو نيكو يا رسول الله يرنت بي جوخول على جيغا يوي على الجي مومو لوكو سوي جور مومو كو صلى الله عليه وسلم ني تك نيكو واخ دغ دي على الجي مومو كو sama wajur moom ko alal ji alalu yàlla la wante bala ma lay jox dama lay laaj yow kaw kaw bi lan moo tax nga poñe poñe bu ñaaw bi mu ni ko dama xam ni laa tuqaabilu asiya bi sayya dama xam ni yow doo fayee jëf ju ñaaw jëf ju ñaaw ku la def lu ñaaw nga fayee kalu rafet mu ni ko wax nga dëgg daal di muñ téye sa loxo bi nekk nañu ànd dem ba sa këram mu ni ko xuus min mayillahi ma tashaaw alalu yàlla ngoog tibbal la sob sallallahu alayhi wa sallam fii tawe mën a yem am na yahudi ñëw ci moom ñoo xamee ni dañu ko la waroon tàndarma sallallahu alayhi wa sallam ñàkk na ba di leb tàndarma bu mu dundee mu leb ay yahud tàndarma waxtu fay jot amul lu mu fay yahud yi ñëw ak seen ñàkk kersa di ko fayee ko si fekk si ci biir mbooloo Umar ibnu Xataab a ngi toog ak saxaaba yi yahud yi ñëw ak sa ñàkk kersa ni ko yéen banu Abdu Mutalib ni yooyu ngeen mel lu yéen leb du ngeen fay da ngeen tardel fay ñu suñu alal wax ju ñaaw Umar ibnu Xataab jóg indi jaaseem fa seen defante ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa Umar dalal nga toog man maa leen leboon man maa leen tardel kon kuy fay bor am na nooy waxe ni ko isam yaa Umar jógal nga ànd ak ñoom wa addi ilayhi tamra wa zidhu ishrina saan jógal nga fay leen seen tàndarma te yokk leen ñaar fukki fat pour tàndarma xool kuy fay bor nag nga leb la woon junne ñu fay la ñaari junne may la ñeenti junne wasalla si sallallahu alayhi wa sallam fa la tabam yem yahud yi àndandoo kera jooju ni ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci la ñu dugg ci diine lislaam sallallahu alayhi wa sallam it toog na si jataay am ku ñëw ñëw jikko ñëw yëkkati ay kàddu ci saxaaba yi wax lu ñaaw ci saxaaba yi ñëpp ñu pat wax ji di bare wax ji di gën a ñaaw wax ji di bare am ko jóg fa seen defante ak ñoom mu ni ko dalal mu ni ko ku la wax lu ñaaw nga ni pat yàlla moo lay fayul ak yi malaakaam soo bëggee fayu sa bopp nag yàlla dëmmooyu la ni ko man sallallahu alayhi wa sallam du ma toogandoo ak seytaane kon su leen ne pat seytaane dem seen yoon subhanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam yan nañu yàlla xiir ci dal yan nañu yàlla xiir ci baale yan nañu yàlla xiir ci teey ak roy sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni wala ma kasurat ba ñu tëjee ay bëñam wa sajja wajaahu wa addama aqbahu wa saala dam fawqa marabisi tëj bu ñu kanamam mu fell deret jay siit ci kanamam ak ci yëreem saxaaba yi ni ko yaa rasulallah uddu alayhim kama daa nuux alayhi ala qawmihi rëbb leen man mu xarbi woon ay mbooloowam ña ko dooñoon mu ñu leen inni lam ubaas muazzaban wa lam ubaas laanan innama buistu daayan wa rahma sallallahu alayhi wa sallam mu ni man kenn yónni ma pour may rëbbee kenn yónni ma pour may mbugale dañu ma yónni may woote ci mbaax ak yërmale daal di yëkkati loxo mi sellee ni allahuma ahdi qawmi fa innahum la yaalamuun yàlla baal leen yàlla gindi leen xamuñu ni maay sa ndawal yàlla suñu xamoon ni maa ni muhammad rasulullah duñu ma def nii yàlla addu ca ars ni walaw kunta fazzan galida alqalbi lan faddu min xawlika faafu anhum wastaxfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يا الأدو تدكو لكي يوم صلى الله عليه وسلم يا رفيق ديكو سو سخرون سو خطون سو ملون نيا نمل ني لا ور دني لا ور بالين ñaanal yàlla mu baal leen te ngay diisoo ak ñoom loo dogooti ci mbir na nga wakkilu ci yàlla ndax yàlla sopp na ñu wakkilu ci moom xasaan ibnu thabit est ce que xasaan xasan ibnu sabit dal di addu te wax jooju ni ajmalu minka lam turaqattu ayni wa axsanu minka lam talid annisa xuliqta mubarra'an an kulli aybin ka annaka xuliqta kama tashaau ku taaroo na yow ci jëmm ak jikko bët mosu ko gis ku rafete na yow ci jëmm ak jikko jigéen mosu ko jur te dootu ko jur xuliqta mubarraan an kulli aybin yàllaa ñu la bind nga mucc si bépp ayib ka annaka xuliqta kama kama tashaau yow dafa mel na yàlla moo la bind nga mel ni nga war a mel sallallahu alayhi wa sallam هذه هي الأخلاق الطاهرة المصطفات التي سطعت على قلوب المكين والقريشين الطغاة فأحالت قسوتهم إلى رحمة وقطيعتهم إلى مودة وشدتهم إلى لين فدخلوا في دين الله أفواجا وأخرجتهم رجالا ونشأتهم أبطالا ملأوا الدنيا علما ونورا وفضلا وإحسانا وكل تدي سنغ تدبا صلى الله عليه وسلم ak jikko yi laab yi ko yàlla rànge nga xam ni waa Quraysh lu ñu soxor soxor mujj nañu wàcc noonu yu soxor ya lu ñu mujj ka bañ bañ bañ mujj nañu ñëw dugg ci lislaam ay mbooloo yi mbooloo ida jaa nasrullah walfatx wa raayta annaas yadxuluuna fi diini illahi afwaajan fa sabbix bixamdi rabbika wastaxfir ña la bañoon ña la génnewoon dàq la ba ci sosoo kaaba gi ñoo dellu siwaat dugg ci lislaam ay mbooloo mbooloo yàlla ñu kon santal yàlla leer ñëw na ngëneel ñëw na rafetal moo am solo fattaqullah ayuha almuslimun وتخلقوا بخلق نبيكم وسيروا على نهجه وفضله فإن الإنسان لا يحيا بين الناس إلا بخلقه وحسن أدبه وفضله سون بوكو تدي نيغي دنك سون بوب تي دين دنك راغال يالا تي ني جيكو ني ساكو جيكو جيكو يونس صلى الله عليه وسلم ني دا تي يونو سنام بي موي تيرال ساكو نغدلم doomu aadama mënul dund ci biir nit ñi ndaree bu tey jëkk ju rafet ak yar bu rafet yàlla rof sa ngëneel te alquran ne ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يلا نينا سبحانه وتعالى بين يمر جف جنيا جف جبن ديدت نينا كل دف بن فيكل رفت كل خار بو ñaaw xalaat bu bon dàqal loolu teg fa lu rafet su amee si digganteeg sa noon sax lu rafet nga di ko dawal insha allahu taala jaay mujj am ndam yan nañu yàlla xiir ci boppam yan nañu yàlla xiir ci boppam yan nañu yàlla xiirit ci roy sallallahu alayhi wa sallam mi wax ni innama buistu li utammima makarim al axlaaq nee na yónni wuñu ma lu dul ngir ma mottali ci yéen jikko yu rafet yi loolu moo war a ñu di gàmmu yan nañu ko dikk yan nañu yan nañu dikke jàmm ci lépp lu caa ngëneel yan na ko yàlla rof jullit yi bi saraf alquran alazim الحمد لله موفق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين هم لأهل الأرض أمان أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي yaidukum laallakum tadakkaruun mbokk jullit yi gannaaw ba ñu delloo tudd màggu yàlla tabaraka wa taala toroxlu ci kanamam sàbbaal ko sant ko julli ci gën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam julli gu ëmbaale njabootam gu sell gi ak saxaaba yu tedd yi taabiin yi ba ilaa yawmi tanaat yan nañ ci yàlla boole ñoo ngi dénk sunu bopp di leen dénk lu ñu yàlla wax ci alquran yéen ñi gëm yàlla gëm yi mu santaane te gëm wéetaay ba mel na ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ragal ko te sax ci ragal yàlla googu bu su dee dee ñëw fekk ngeen di julli yu ragal yàlla yan nañu ko yàlla wërsëgal li ñu koy may moo di sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi wax ni jokkal ku la dab joxal ku la xañ jéggalal ku la toj ñetti dénkaan yoo xamante ni képp ku ci jaar roy nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku ko roy insha allah ëllëg lu mu yàgg yàgg daj ji seeg yan nañu yàlla xiir ci boppam yàlla nee na ci alquran daf ñu sant ñu jub ñu juboo te di jubal daf ñu sant fet ak jokk mbokk ne tere nañu def lu bon tere nañu def lu ñaaw tere nañu bew képp ku sàmmoonteeg dénka yi mu jural la ragal yàlla ñoo ngi toroxlu ànd ak di ñaan ci barki guddi leer yi ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla xool bëtu yërmande fi diin wa dunya wal axira yàlla sooñu baalul kan moo ñuy baal yàlla sooñu yërëmul kan moo ñuy yërëm yàlla boo delloo sunuy ñaan yàlla boo tas sunu yaakaar yal nañu yàlla jégal sunuy bàkkaar yu jëg yu mujj yu feeñ ak yu làqu yu ñu tey ak yu ñu teyul jégal ko bépp julit yàlla bu yàlla jàppee benn julit benn bàkkaar ñu nag ci àllaaxira lu bàkkaar rëy rëy ak lu bàkkaar ñaaw ñaaw yal nañu ko yàlla baal baal ko bépp julit fi diine wa dunya wal axira suñu way doon yi ci biir suuf yenn yàlla jéggal leen yenn yàlla yërëm leen yenn yàlla yaatal seen yërmande ba ëllëg ñun ñëpp suñu lay xaj ci yërmande googu ak njéggal njéggal googu bi xurmatil quran al azim suñu sëriñ alxaaji maajoor siise radiallahu anhu yenn yàlla dol yenn yàlla doli ngërëmam yenn ñu ko yàlla fayal jazaal muhsinin njaboot gi nga fi wuutu ci doom ak taalibe góor ak jigéen yàlla saxal seen dugub seen dëppoo seen jàppante bu rafet ba ñu téye ndono ji mu leen bayil téye bu jur ngërëmal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma ajal jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi تفرقا معصوما وتجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القران العظيم وثبتني واياكم على الصراط المستقيم واجارني واياكم من عذاب الاليم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين انه هو الغفور الرحيم اذكروا الله يذكركم